salaamaaleykum mbokk internet yi salaamaaleykum mbokk Sénégal ñi ngi seetaan ci biir la puissance ak ki nga xam ne mooy wasaare Leewtoo ak jël bi ak Sarr TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag événement la ci biir événement yi kan moo wooteeti muy Jax production wala nga ne Jax Wrestling production ki nga xam ne day dundal làmb waaye dundeewul li nga xam ne làmb nee na la damay jël mburu simple boole kaak mburu dóol li nga xam ne mooy yaatal làmb loolu ci Jax rek nga koy gisee moom la doon king de la lutte simple waaye balaa boobu dama gis kenn sama droite gisaat keneen sama gauche sama droite nag ki fi nekk kenn dootu ko naatable ngañ seen la kan serpent noir waaye keneen ki ci gauche gauche ki nag xaytala nag nag mooy borom dëkk bi nee naa borom kër borom kër Masaar ak borom borom dëkk bi ak box daat ak feneen ak feneen waaye yow ngañ seen xaw ma ngañ seen mooy borom fan buuru siin buuru siin mooy buuru siin ak Saalum buuru siin ak Saalum waaw kay nee na moom moom siin moom Saalum mooy Johnson te nee na nag dugg nga ci loo xamul de xaar ma bàyyi ngañ seen mu nuyu kan moo njëkk nuyu nuyu waaw nee na ginnaaw bañ sant yàlla di julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur comme d'habitude di nuyu sama doomu nday alaa mi ak jabaram ak seen waa kër ñoom Malick ñëpp maa leen nuyu di nuyu waa Baxdaat xam nga waa Géejawaay yëpp di nuyu waa Kër Massar tam bi ma dëkk xam nga di nuyu sama waa Ikiri sama président Ikiri ñoom Seero Abou Sey ñëpp Issa Pouy Massayer maa leen di nuyu di nuyu sama waa Ikiri yëpp Ikiri jëf soog a nekk. waa di nuyu ñëpp di nuyu tamit journaliste yi fi teew yëpp wax dëgg yàlla maa leen nuyu di leen santu bu di leen gërëm. waaw di leen wax nag ni xam nga moom comme moom mooy borom siin xam nga borom Saalum man waaw borom Thiès ak yëpp xam nga rek mm. dama ko dama koy dimbali rek avancé am ñëpp dañ kaa bañ a jël mais man maa ko jël sama bopp yaa ngi dégg mm. te léegi nag xam nga le 22 incha allah dinaa wane la moo tax ma jël avance am waaw ah, ma bàyyi a ñëwaat foofu. ngañ nuyu naa la buur buur siin Saalum borom njaga ñaaw. waaw ah, fay naa la. Mhm. maa ngi gërëm wa adduna yëpp. Mhm. di kontaan ñi ma àndal nii Souley Mole ak njaga ñaaw bi ma jógee. Mhm. ak Joal waa Diofior waa arrondissement bi le bàyyi ma kenn daal vraiment kontaan naa ci lii quoi. nee na dalaa dimbali. yàgg nga ci wax nee na dalaa dimbali. non yàgg naa bëgg combattre mënu ma koo am. kii uh-huh. uh-huh. ci yoon bi la bokk ah. ah, yoon oto kay bu tegoo ci kaw tëli bu yegsee ci doodaan na lay def day freiné yéeg ndànk. wàcca waaw. kon yow yaa koy freiné. déggoo li xanaa nee na man ci yoon bi laa moo tax ma ko oto bu tegoo ci kaw tëli ba yegsi ci doodaan. Uh-huh. day freiné ndànk yéeg ndànk wàccaat. pareen saa sax mu yéeg fay xam nga kër yéegaat. ah doy na waa xayta yow mi kii nga de. barke alxuraani karim maakaar combat man maa ko jëlal sama bopp man xayta te lépp lu ñuy def ci bëri kii dàquma ko. Eh? kon nag bu ñu xeexee nag dama koy duma. du simple day jaawale simple simple mooy lan. man man tey ñu ma xam ñëpp ma xam nañ ma ci làmb simple loolu du ma ci sori sax mais tamit tey jii moom xam nga tey jii moom instant nii moom moo ci nekk nii rek mais man instant nii xam nga man man damaa xawoon a retiré wu tuuti rek mais man simple ku ma ci xam amul naan bu ma ci dajalul. wala moom xamul lool na dem laajte am nañ bu paree dinañ ko woo ci ruq wax ak moom. dama la suuf lu bëre lépp luñ siy def dàq ma te bu ñu xeexee ma duma ko te bu moytuwul nag ma duma ko. waaw. dégg nga li mu wax de. saa na boo ñëw ba ci doodaan. da ngay feree yéeg wàccaat. man damaa kontaan moo tax manuma wax quoi. Ah. vraiment damaa kontaan. moo tax manuma ay ngañ yaa ngi kontaan de. non déggoo li may ngañ seen de xale bu ndaw damaa kontaan maa ngi koy ñaanal jàmm daal ba bés bi vraiment amul lu may wax wax daa teel quoi. ngañ. kii le 22 janvier boo a man man Ngagne Sène. kuy bë kuy bë ku bëri ñaara làmb benn guddi wala ñetti làmb benn guddi benn takkusaan jaaxalu ko de. Ah, nee na day bañ nga jaawale simple beeg dóor kuy def simple door jaaxalu la ñun xale ndaw la dañuy tarbiyu làmb. Ngagne Sène seetaan nga kii non amu temps bi sax. Eh? kii dama koy daan ci kattanu lu muy indi ma ñaata lu muy indi ma daan ko. bu naawee sax mu kafe ko si ci kaw dóor si suuf. Eh? billaay wallaay. waaw lool sax xalaatam la rek daf may daan moom mbër bu nekk booy dem làmb ja loolu ngay wax kii dama koy daan mais dina di leer ni su barbe bi siflee dina uteeg fii nga taxaw nii di wax eh? barke alxuraani karim su ko neexee na mu ne kii dama koy daan mais boo ma gisee jouru làmb ja xam ni kii tey ñëwul sax pour daanu su ma naxul sama sama ñi ma àndal seen combat nga am de ngay def ak sa dàll yu ñaaw yi baa nga am lu leer laa la wax nag ma ne ngañ seen boo bëree benn guddi ñetti mbapat man dem bëre naa benn guddi ñeenti mbapat ba taay barke alxuraani karim est-ce que yaa may dégg. problème tàmbali. yaa may dégg li loolu dàqoo ma ko su fekkee bëri ren nañ ko tegee na la xeex bi la ñuy wax ndax duma la duma. nga duma ngañ seen. billahi wala taal dama lay duma daal la. yow gis nga te doo ci mën dara ngañ seen waaye lii du dara ay gis nga ngañ seen mooy la ngañ seen xola fu ne contact bee ko jàpp rek ma ni bàyyil bañ dem ci contact ba ñëw ba ci jour lamb ba fekk fi ngañ seen dina xam ne fii du feere fii du nag yere ah te la gis nga lamb simple ñun dañ kaa xam gis nga àll ba boo fa demee lamb simple xam fa la mooy lamb simple ah. Dakar mais àll ba tey boo fa demee poids lourd par exemple nga ñëw fekk fa six personnes ñi fi taxaw xam nañ li may wax par exemple nga ñëw fekk fa mais bu ñuy wax bëre ah. bëre li simple dix Dakar la waaw ñaata lamb laa jël Dakar yaa ngi déglu ma loolu loolu moom fii la kii ren jël na lamb Dakar jëlati ko. waaw ren ko ba taay kii xam nga fa la jógee. kii xam nga fa la jógee. fi mu jógee ñun ñu ngi fa woon taxaw di ko xool. kii ba ngeen suñu combat taxaw na ba léegi ñu ngi ci moom. kii na réglé. kan la ma ne kii fi mu jógee laa la xam nga jour ma lay ma dafa demoon dëkk ba du ma ko wax wante nga naan booba ñu ngi ci ñu ngi ci moom. kan kii na réglé wala ñu. <laughs> kii nee na de boobu ba léegi ba seen combat bi taxaw ba tey moom. <laughs> ngañ seen yaa ngi ree loo xamu de xamoo daa mel ne xamoo xayta de. déggoo li wax mu ngi si man daa am temps nekk si man man maa ngi si làmb ji combat bi waaju ma ko def ma ko daal ñëw daan man maa ngi compétir bu combat bi jot ma ñëw daan ko ñibbi ay làmbu dakaar nii nii borowul Dakar borowul na man li fépp laay bëre Sénégal fépp mise yu dakaar daa teg Dakar daaw beneen lu ma ko jël. kan moo ko jël. ah ngay yaa yaa dugg Dakar non ay lu ñu jël ak lu sax jaru ko xam nga li ma lay wax mm. yow jaruloo ma waaj jaruloo may dugg ci sama téléphone di seetaan sa combat am ma taa bi man maa ngi compétir chaque jour. yaa ngi def musiba nag. non jaru ko kii bu indee xeex ma dóor déggoo li ma la wax bu naawee. kii ma kaf ko ci air bi dóor adversaire am bi mu mujjee jël da koo yóbbu kaaw. waaw yow kii du ma yóbbu Ardo kii dama koy yóbbu Ardo dama koy dóor xeex lay indi xeex. waxamal lii de xeex lay indi. seen musoo bëre bëre dóor. waaw doo taxaw ne ñu ñamante sax benn ñaari ko. ko ah. non xam nga kii. est-ce que yaa ngi dégg li ma lay baax day doog a bëri. nee na day doog a bëre bëre dóor xaw ma da dugg ci làmb ji. est-ce que baax gisa mbër muy doog a dugg ci làmb ji bëre dóor nag mën ngaa taxaw fi ne da ngay xeex mais da nga fay dugg mel ni ku dugg ci ndox di dàq ji ay jën bëgg leen a napp xam nga leen jàpp noonu jën yi buñ duggee sa loxo sax dañuy génnaat di daw loolu moo la nar a dal ci làmb ji kii bu xeexee dama koy gànje bar kii bu xeexee dama koy gaañ bu xam nga kii la moo ko arrangé mooy comme lim lim ma bëgg a indi kii dama koo xam est-ce que yaa ngi dégg kii xam naa ko te kii wóor na yàlla laa lay watal de coin yëpp ñuy fàtt jour boobu sa waay jour boobu duñ buñ ñëw duñu indi melokaan bii beneen doomu aadama ngay gis te fekkee bëre moom bu yeboo nga jël ko teg ko suuf yàlla nañ yàlla may jàmm waaw man loolu laay ñaan quoi kii eh. yàlla na ko yàlla may jàmm ba ba dara bañ koo jot quoi kii dama koy daan ci kattanu yàlla kii. doo daan kenn. billaay koy daan. doo daan da ngay. koy daan. barki yàlla doo daan kenn. ngañ gis nga fii ma taxaw nii fii. nii laay taxawee moom bari bi sible. fan ngay taxaw fii fii fii fii taxaw. xam nañ gis nga ronge gis naa ronge tax may taxaw foofu nag. di ko duma te du fayu. boo taxawee sama kanam moom nga ñu nga àndal. waaw baax na man dama lay teel libee la nga ñibbi. billaay walaay. laay laay la sama pum pum waaw sama mbokk bi xëjul si yow. Eh? yow yow doo mbëkk yow da nga naan coppeel tànk terminé ko ci ndigle te boo ko defee toog. <laughs> Oh. <laughs> billahi mooy yow yow loolu yow loolu rek mooy sa bëre. dama laa sa tànk dama lay nga wàcc. yow kon yow nga ne kii day yooru coppeel tànk. kii day yooru. saalu sax mbaaw ba bu dootoo fa entraîné dama dama foofu tëj nañ ko. est-ce dégg foofu noonu tëj nañ ko. Ah, kii saal dootu fa duggati. ma ne dootoo fa duggati laa. moo foofu maa ko moom maa moom. Euh, saal bi maa ko moom. bu ubbi. waaw baax na yaa la ngañ seen déggoo li ma la sonof noonu billahi wala ta di xam ne kii am na combat wóor na alxuraani karim combat man maa ko jël te dina ma jaral lu nekk nag. kan kii nii billaahi wala combat bii nii xoolal wóor na yàlla mooy sama premier xam nga ñaata combat laa bëri arène dix. bii mooy sama premier combat arène nag. billaahi wala sama bakkan laaj teg maa ko jël te xoolal xam nga la moo gën a neex ci àddina. nga jël combat boo xam te ne ah man loolu laa bëgg ñëpp ne ma xoolal xëy na soog nga jël. billaay su ma ñëw ko arène nationale le 22 billaay sama bakkan fii laa koy bàyyi. looy wax ni barke alxuraan. man xëy man maa wax loolu. te xoolal képp kuy sama supporter maa ngi lay woo ci bi nga ñëw ñu duy esaat ba mu fees dell jàpp kii duma ko daan ko dem ñibbi te du ci mën tus la mooy problème bi. naa bu ma la njëkkee nee na combat bi moo ko jëlal boppam. Mm. xam la bëgg laa freiné moo tax mu jël ko. Mm-hmm. ngañ seen bi ñuy wax tudd ci làmb ji. déggoo ma la wax moo ko soof. kii wax naa ko. kii damaa kontaan ci moom parce que sama avance yàgg na di tere moo ko jël quoi yal na ko yàlla may jàmm ba jour man loolu lay ñaan rek waaw. mais nag Jax dafa woote. déggoo li ma la wax moo tax mu wax la daa bokk si yoon bi. <laughs> kii daa bokk si yoon bi non yow appuyage nga. wala appuyage boo ñëwee ba ci ba ci ba ci paiement bi nooy def appuyage boo ñëwee ba ci paiement bi nooy def da ngay taxaw booy da ngay taxaw xoolal fas loo ko dàq dàq dàq ay fasa nga ca kanam ndànk ndànk rek. ndeysaan Jax moo waxoon waaye nag bu ñu waxee dara dañuy wax côté mobilisation ndax làmb promo promo kii mobilisation rek dañu yaakaar promoteurs yi. nan ngeen mobilisation bi muy waaw mobilisation bi di ci sant yàlla rek bu baax su ma ñëwee rek ñëpp dinañ xam ne billaahi borom dama dégg da nga ku moytu ma ne mobilisation bi ah. fii gis nga man géej man Baxdaad fii la dëkkoon te ñooñu fu ñu toll ni instant actuellement ni ma ñoom laa jox combat bi essayé ma ma dégg te ñooñu ñëpp ñu ngi waaj mobilisation bu mag rawatina waa Kër masaar yaa ngi dégg waa Kër Massar ñëpp maa leen di woo ci combat bi ñoom ñëpp dinañ def mobilisation jaxse dina kontaan parce que li nga wax noonu dëgg la promoteur actuellement ni amuñu lenn lu loo xam te ne ticket yi lañ am ak mobilisation bi hmm. amuñu sponsor ñu ngi leen di ñaanal promoteur maa ngi ñaan Jax balaa le 22 mu am sponsor yu baax. ñu daal di ñëw mu gagné ci combat bi xaalis bu bari ñu ñëw duy stade bi ba mu fees dell yëngal ko ba mu yëngal ndax jour noonu tamit journée bu neex la. Hmm. yaa ngi dégg di woo amateur yëpp di woo supporter rek amateur yëpp nañ ñëw seetaan nañ amateur li simple yeeg ñëpp ñu ngi leen di woo. nañ ñëw seetaan si yaa ngi dégg ñu ngi ñu woo ñëpp bàyyiwuñu kenn mais incha allah rabi moom man moom ku tëgg sama koom man man musuma am ak problème ak promoteur mm-hmm. yaa ngi dégg ci côté boobu noonu man ku mus a tëgg sama combat satisfaire naa la waaw man ku mus a tëgg sama si si site internet laa waxee ñëpp ak may dégg waaw loolu moom maa ngi ciy sant yàlla bu baax yaa ngi dégg di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di jox rendez-vous ñëpp la 22 fii ci stade arène waaw hmm? ñu ñëw bëre si jàmm xam nga daan si jàmm ñibbi si jàmm si barke yonent bi amul leneen loolu loo ci mobilisation bi nga tàggatoo. déggoo la wax xanaa hmm. man maay borom Sénégal xale bu ndaw laa. yàlla lépp ñëpp ay ñëw. Sénégal laa wax de ñëpp ay ñëw. Hmm? billaay walaay ñëpp ay ñëw. kii dama koy teel libéré mu ñibbi. waaw fi ngay jëm daa sori wax nga dëgg de ñaga ñaaw ah. Ah. kii. wallaay azim yal naa ko yàlla may jàmm ba jour ba. man loolu rek laa ko ñaanal. voilà voilà man loolu laa koy ñaanal. ay lii moom dal wala lii ak lii man lool laa ciy bañ. Ah. yal na ko yàlla may jàmm. Mhm. waaw bu muy naaw ci heure bi sax ma kaf ko. loolu moom jeex waaw. maa ngi woo woo waa Njagañaaw waa Joal waa Diofior waa arrondissement bi waa Fissel waa Kaarang bàyyiwuma kenn daal vraiment euh, maa ñaan ñëpp daal ñu ñëw jàppale ma ci suñu maire bi Tening Sène ngi koy wëcc sa combat bi nee ko combat bi sa combat la waaw bàyyiwuma kenn maa ngi kontaan naa quoi vraiment damaa kontaan. bilaay walaay waaw man maa ngi woo waa Kër Massar yëpp rek di woo maire yi fa nekk yëpp. waaw euh, am na maire maire maire monsieur le maire Bilal maa ngi koy woo ci combat bu baax ndax xama sama waay la woon te man ak moom def nañ lu nekk ànd nañ fu ne xam nga yàlla dimbali ko tey ba mu nekk maire nord Kër Massar xam nga maa ngi koy woo ci combat bi. xam nga di woo sama grand Modou Kudul mi nga xam ne mooy sama lépp du ko fàtte benn yoon maa ngi woo di woo doom nday Moussa Ndiir xam nga. di woo gaay di woo waa daayira bi sax maa ngi leen di woo ñoom ñëpp wax dëgg yàlla xam nga di woo xam nga sama doom nday Thier Thier mat laa xam nga di woo ay ñoom Seedo xam nga di woo sama doomu nday àll di woo sama mag ceer xam nga di woo waa Kër Masal ñëpp aw ma seen fay ay ñoom Samba Papis Papis Gueye xam nga di woo sama booy koñ yëpp maa ngi leen di woo ci combat bi xam nga ñu ñëw di woo bonne volonté yëpp yi nekk Kër pour ñu jàpp ci combat bi xam nga Moussa Samb xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ñoom ñëpp wax dëgg yàlla su ma amee combat xaalis bëri lañ may jox sonn ci combat yi billaay wallaay taala xam na maa woo ñëpp xam nga di leen wax xam nga rendez-vous bi la 22 la fii incha allah Jackson moo woote xam nga na gars yi ñëw ñu feesal ko ba mu fees xam nga yëngal ko ba mu yëngatu bëre lu neex yàlla may ñun ndam ñu dem ñu bu yàlla. aja Jackson la doon king de l'arène moo woote woon muy le 22 décembre waaye nee bi am na signature contrat fële ca 2STV ñu di ko teral ñoom Liss Ndiago ñoom Ardo ak ñi nga xam ne ay ngañ seen ay boy moroon ñëpp dinañ ca ñëw ñu ngi woo képp kuy site internet rek nga ñëw le 22 décembre signature contrat 2STV incha allah jërëjëf.